billahi mina sheytaani rajim bismillahi laa xoola wala xowata illa billahi maa ngi nuyu site internet bi nga xam ne sunu TV lañ koy duppee di nuyu sunu xarit bi nga xam ne tubaarkàlla dëgg-dëgg moo ñëw tey seet si ma tànn ma pour teg ma ci yéen ma waxtaan ak yéen askan bi ak diaspora bi nga xam ne dinañuy faral di am ay jafe-jafe ndax ñun xam nañ loolu ndax ñun ak yéen la wax dëgg yàlla ma lay nuyu di la ziar bu baax di la ndokkeel di la delloo nuyoo bi sëriñ bi ñu lay ziar bu baax a baax. bëggoon naa xam yow yaay kan. waaw man maay kan loolu yomb na ndaxte Zeyda dëgg-dëgg yàgg na ci seet yàgg na di gis yàgg na di wax muy am waaw ndax loo xam ne ba ngay xale la la topp ba léegi di la wan ay jafe-jafe di la wan ay neex-neex. di la wan lépp loo xam ne rek yàlla daf ko moo ñaale doomu aadama yi kon loolu dama naan soo ne ma kan mooy Zeyda damay sawar trop ci wax la loolu. d' accord euh, bëggoon nañu xam euh, lan moo la dugal si faj mi depuis que nga commencé di faj. waaw faj ak seet loolu yàgg na waaw faj ak seet ndax dama naan ki nga xam ne moom la yàlla di wan say problème moom la yàlla di wan say garab yi lay faj. kon dama naan faj ak seet ñoo ànd ñëwandoo ci man waaw ndax kuy seet yàgg nga faj aajo noonu la demee. d'accord euh, bëgg nañoo xam si lan ngay yëngatu yan si yaaru faj ngay yëngatu. waaw genre yi may yëngatu tamit mooy yiy faral di dal doomu aadama. Mhm. yiy faral di dal doomu aadama léeg lañ nga gis koo xam ne yaram bi day metti torop fekk dañ ko liggéey sëf ko. ba nga xam ne léppam day booloo di metti moom ci boppam du xam lan moo koy ah. metti hmm. loolu soo ñëwee bañ xool ko ba xam fan la toll ci yow dañ koy dindi ci kàttanu yàlla te du yàgg dara nag incha allah. d' accord bëggoon naa nga wax ñu euh, lan mën a dugal ci faj bi ak euh, da nga ko jàng wala lu ma donn la. waaw donn am na ci yàlla may na ma ci. waaye tamit du ma ne jànguma ndaxte dëgg-dëgg doomu daara la doomu daara la ñu yar ma ci alquran yar ma ci jàngal ma ci xadis jàngal ma lépp loo xam ne rek tere suñuy boroom la lépp loo xam ne tamit lu suñu borom gërëm la hmm. kon dama naan donn am na ci judduwaale am na ci waaye jàng tamit am na ci ndax jàng moom ku ñu yar la hmm. waaw képp koo xam ne ni war nañ la yar teg la ci yoon. Hmm. jàng war na am ci yow wàll. mais yaa Zeyda euh, gis bokkul ci. Hmm. dama ñëw tey mbooloo mu mucc ayib fekk fi yoo xamante ni man foog ma hmm. daal di fekk. lu waral liggéey boobu. waaw li waral liggéey boobu mooy discrétion am na ci simple am na ci waaw parce que don bi ak talent bi mi ngi fi. yàlla may nañu ci trop man gis artiste artiste wala artiste ñëw ci man. nekkul lu bees nekkul loo xamante ni daal lu lu lu fort la ci man daal wax dëgg yàlla. Ah, d'accord euh, yan genre xeetu faj ngay def. waaw yan genre xeetu faj maanaam hmm. biir buy metti rek di jam borom du mën a lekk dara lu mu lekk wocc ko soo ñëwee fii bu ñu xoolee ba xam ndax liggéey la dañ koy faj su dee rab moo la ko defee dañ la koy fajal. Hmm. incha allah. d'accord loo xam si jigéen ji xam dafa tëw am doom. waaw jigéen ju taw am doom tamit ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. am na lu ñu ci yàlla may suñ la xoolee ba xam ne yow war nga am doom incha allahu rabbi dañ lay faj pour nga am mm-hmm. doom. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla. d'accord lan nga ñu mën a wax tamit euh, ci góor goo xamante ni dafa tële. waaw góor bu tële. Mm-hmm. dañ koy faj. waaw su fekkee borom judduwaale wu ko. dañ koy faj ci kàttanu yàlla ak baaxam. waaw. d'accord ndax nag am ñoo xam ne dañ koy judduwaale di la ko nëbb. mais yow soo ko seetee rek. di ko xam. Hmm. te boo ko ko waxee borom du wedd. foofu laa bëgg duggee laaj euh, Yazida ban xaa ban xeetu seet lay def. waaw ban xeetu seet. Hmm. dama naan la seet maa ngi ciy gis ci ay méthode hmm. façon seet yi may seet bëri na. te nee naa loolu ku mu nar a jommal wax nañ carrément nit ñi bëri na façon portable yi ñuy téye. Mm. te bu nekk ak abonnement am. Mm. te pourtant bu dee jokkoo kese benn mën na jokkoo. Mm. mais am yëpp dara da koo dàqul. waaw. Euh, gis naa da ngay seet si suuf seet si ndox. seet si pétaw seet si ah. yëpp quoi. waaw. macha allah daal yàlla may na ma ci. dégg yàlla may na ma ci seet yi nga tudd yëpp yàlla may na ma ci bu baax a baax a baax. ndax da ngaa jëfoo da nga jëflante ak ñu nekk bitim réew. waaw dinaa jëflante ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew. ci kaw ñu am ay jafe-jafe. ndax ñoom nag ñoo fi dàq war waa bitim réew. Hmm. waaw waaye nag am na ci mbir yoo xam ne ni xaa dem dellu si la tudd. Hmm. bis buñ ko jëflanteeg yow boo waree di dellu si waat te bis boo dellu si waatee it yow yaay am gàncax ndax man maa ngi fi tàllal la sama loxo saa su nekk ndax dama naan man maa opté li nga xam ne yàlla boole na ma ci. li nga xam ne yàlla mun ma koy mun ma koy mun ma ko teg muy di jëflanteeg gaanu yàlla yi ak yu mel noonu. buggoon naa euh, xam tamit euh, yaa Zeyda. Mhm. nga nekk bitim réew bëgg këyit mu tëral lool. Mhm. amuñ ci saafara. am nañ ci saafara. Mhm. waaw ndax nga nekk foo xam ne kenn reconnaître la dafa metti dafa metti te dafa yomb ci tubaab bi torop ku amul këyit muy jëflanteeg yow. moo tax képp koo xam ne amul këyit buñ jëflantee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam lan dinaa ci def li ma mën incha allah di nga am si këyit bu soobee yàlla. d' accord bëggoon nañu ñëw tamit euh, ñëw si Yaye Jula nga wax ñu nga xamante ni wàllum xeetu na te dem bu fekk ay artistes yoo xamante ni. ak nit ñoo xamante ni ñuy célèbre ndey. Mhm. lan ngay jëflante ak ñoom ci ban anam. maanaam ñu célébrité yi comme ni ñu koy waxee ni may jëflante ak ñoom mhm. maa leen fekk. Mhm. ci seen ci seen milieu. tànn leen ñoom ñu fekk ma ci sama milieu tànn ma. ndax célébrité boo jëflanteeg moom danga koy xamal ne ko yàlla may na ko d' yàlla may na ko parce que ki yàlla may na moom mooy tollu fenn fi nit ñi. Mm-hmm. mais ki yàlla may tamit moom la ñuy aar ba yàqu-yàqu du ko laal. Mm-hmm. ndax gàtt fan weesuwul cat. célébrité bu dem ba doon siiw feebar cat kël na la dégg nga parce que sa yëngu-yëngu moo la mayul ngay tëdd ci kaw lan di def. Mm-hmm. kon dama naan célébrité yi. ak ñi nga xam ne ni yàlla boole na ma ak ñoom ci milieu showbiz bi mm-hmm. may jëflante ak ñoom ñoom xam nañ ne carrément yàlla rek a tax te yàlla ñu boole moo tax. politique bi na nga ci mën a andi. politique bi li ma ci mën a indi mooy ne dëgg-dëgg jafe-jafe am na ci torop mm-hmm. jafe-jafe am na ci ndaxte dañoo nanguwantewul ku nekk sa cëru moroom. Mm-hmm. waaye damay digal képp koo xam ne sénégalais nga. ci élection yi nanga génne ñetti mbuusu glace ak ñaari kilo suukar kër gu nekk laa ko digal buñ ko defee yàlla dina seddal lu bëri lu naroon a tàng te war a tàng. d'accord sacrifice yi bëri nañ Sénégal. Mhm. jinne yi bëri nañ Sénégal. Mhm. ndax da nga yëngu ci wàllum jinne. waaw dama ci yëngu te dama cee am lu ma ci xam. Mhm. ndax dara boo ko xamul doonoo ko déggoo ma ne ku dul géwél bu yuuxoo woy bu daanalee géwél bu ko fekkee danaa kii du géwél. Mm-hmm. ku dul géwél mm-hmm. su yuuxoo woy daaneel géwél bu ko fekkee danaan kii du géwél man bu nit di wax ci mbirum jinne boo yëkkatee sa baat daaneel dama naan kii waaja la kii du waaja waaye li ma xam te xam ko te gis ko ci ñoom gis naa ay jinne yu souffrir bu baax mm-hmm. waaw yuy souffrir bu baax tamit jinne nu muy duggee nit jinne ni muy duggee nit dafa bëri ay façon la am na ñoo xam ne bu la boo ëmbee lañuy dugg sa doom hmm. am na ñoo xam ne boo amee doom lañuy dugg sa doom hmm. dégg nga jinne bi nga xam ne am na doole dëgg mooy soppeeku nit waaye jinne bi nga xam ne pouvoir am bëriwul du nekk nit leneen lay nekk waaye ñi ko xam di ko gis dañ koy xam di ko sentir di dund présence am hmm. waaye dama naan bëri na ñu ci ànd ak ay jinne yu bari te duñ leen sarxel duñ leen sacrifice dégg nga mooy waral mbir yi di metti torop mooy waral jaxasoo bi léeg day am Sénégal bari loolu torop sax dégg nga noonu la demee. d'accord léegi ma gis ne tamit euh, ma bëggoon nga wax ma rek euh, ci wàllum euh, xam nga jafe-jafe dafa bëri Sénégal. Mm. da bëgg sëy mu tëla nga bëgg jabar mu tëla. waaw lu waral loolu. waaw jinne bu mm. dinay def di téye téeméeri junni yu jigéen. Uh-huh. yu rafet. toll lu leen neex jamono soxla leen seeni morom soxla leen ñu téye leen di leen gàllankoor dinañ la topp ba ci da tuur ndox. Ah. muy mag. Mm-hmm. dinañ la topp ba dañ lay bumax ci gàcce soit ngay dem di topp ay góor ba seen waa kër yëpp xam ko. Mm-hmm. dinañ la topp sax ngay sàcc. Mm-hmm. te fekk loolu lañ ci bëgg toroxal la lañ ci bëgg gàcce la lañ ci bëgg. te li may wax nii am na ci koo xam ne tey bu toogee seetaan dina ne ah man kat ñetti mandarga yi mu wax yam niñ ci man dëgg la. waaw waaye nag damay wax ne rek maanaam ci kaw wax. Hmm. ndax boo toogee li may seetaan dinañ ne kii de day wax rek mais yàlla bi muy wax ci bi muy wax ak ñun nit ñi doomu aadama yi ci wax la waxee ñun. Hmm. alxuraan ci la waxee hmm. yeneen ci bi ay waxam la fi bàyyi muy xadis. kon wax dafa am solo. am na ci ñoo xam ne yow miy seetaan te naan kii day wax rek kooku laay dimbali ci xel. parce que luñ la waxul. tàggatal la ko ba pare doo ko ko doo muy muy ñam bu mën a nekk nag hmm. tey de ceebu jën laay togg lii ak lii laa jënd mooy tax nga am amooru ceebu jën dëgg la kon wax dafa am solo jàngale dafa am solo hmm. xamal nit ñi fi ñu war a toll dafa am solo hmm. donte li nga ci xam bëriwul dégg nga ndaxte nañuy waxee ci ci bas niveau nañuy bañ a rëy nañuy bañ teg fenn suñu bopp parce que yàlla buggul loolu kuy rëy rëylu mais nag xam te di ko wax loolu dara nekku ci. dëgg la yaa Zeyda commencé faj bu mu nekkee as nekk ndaw euh, Sénégal ñu gis ne puusal ma toog dafa bëri. dëgg la la nga ci saafara. waaw puusal ma toog ku xamul rek yaa ciy xeex. Hmm. ndax gardien yàgg na di ñaandu te ndekke moo war a nekk propre propre euh, ni koy waxee chef fi muy garde hmm. nga nekk ci gardien rek di ñaandu yal na yàlla teg la ci gardien fekk yow. war nga jóge foofu ba chef ki ngay garde hmm. ah ku ne gis na Bougane Gueye Dany fu mu nekkoon du Walfadjri dëgg la tey mi ngi ni nekk chef de presse est-ce que bu nekkoon Walfadjri nekk journaliste di ñàllu yàlla sama journaliste gi yàgg dana fa jóge kon puusal ma toog dama naan nit ñi dañoo xamul mais benn côté yokkute la benn côté hmm. yokkute la hmm. nit warul gën a bëgg fi muy liggéey na ko liggéey ba gën a bëgg man loolu laa lay defal. donc am nga yow loolu saafara liggéey bi gën a bëgg ku ku yow. waaw su ma la jàppee man di la sant. Hmm. damay ñaan li ngay def yàlla na la gën a bëgg. waaye yow bul ko gën a bëgg. Hmm. soo ko gënee bëgg da ngay tardé. parce que hmm. moom dala fay bàyyi wuti keneen. dégg kon puusal ma toog bëri na ñu koy waxee mais dégguñu wax ci. waaw puusal ma toog léeg-léeg dina nekk yokk. mais dégg naa ñuy wax si Yazida ñu ne ak moo aay ci ku nekk bitim réew ñu kayit. waaw loolu dafa am parce que ndeysaan li ñuy wax lu téeméeri nit wax. Mhm. ñetti nit buñ ko wéddee du am sens. Mhm. ndax suñ sëriñ bu mag waxoon na ne man su ma waa Sénégal wéddee waa Màkk gëm ma dégg nga waa dëkk bi ma gën a bëgg gëm kon loolu ku ma weddi amoo sens ndax yàlla moom lay nekkal. Mhm. waaw moo tax dama naan téeméeri nit yoo xam ne jokkoon naa ñoom. incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñaanuma yàlla di jàkkaarloo ñoom di rus te satisfaction day am soobee yàlla. d'accord nga jàng wala nga am sa diplôme bëgg place mu tëla loo ci am. waaw jàng ak am diplôme ñàkk teggin dina ñàkk may nit liggéey. Hmm? waaw ñàkk teggin dina ñàkk may nit liggéey. ah bon oustaz bu mag bu ma doon jàngal ndeysaan boobu ñu ngi gën a nekk xale mun nañu. ñii déposé diplôme ñii déposé liggéey te bu ñu joxee seen CV ñu xëcc tiroir ba def ko fa li koy waral mooy seen muallim maanaam ki leen di jàngal. Hmm. su daan wax nekk ci kanam duñ ko respect bu waxee ñu sànni loxo di ko di ko maltraité di ko manqué respect moo tax dañuy dem ba am diplôme diplôme bi zéro lay nekk ndax foo def CV kooku day xëcc tiroiram def ko ci. d'abord nit bala ngay ñaanlu yow muy ñaanlu peeseel say jikko. peeseel say teggin yaral sa bopp parce que yàlla moom ku nekk la jege ku nekk la jege comme yaa ngi ut intermédiaire nag di ñëw ci Zeyda hmm. man booy ñëw bu ma la peesee ba xam ni nga toll dinaa xam ne war nañu ànd hmm. su dee nag am na noo mel parce que léeg-léeg nit ñàkk aajoom bañ a faju fekk ci moom la dëgg la fekk ci moom la hmm. ndax mënoo jël paanu sanguwaay maanaam paanu tuur ndox xëppoo ko ba nga jël kaasu ndox sangoo ko doo set. doo set. Mhm. doo set loolu mhm. dafay am. da ngay fekk koo xamante ni maanaam dafa tilim ci bépp côté. Mhm. nga cuub xelam. waxtaanal ko delloo si xolam ba mu dal mu xam valeur bi mu yor mooy lan muy doomu aadama di ko yàlla def. te mënoon koo def xaar wala mënoon koo def leneen ak leneen. ok Yaye Zeyda ñu jublu si li nga xamante moo nekk combat Modou Lo Balla Gaye. waaw lan ngi si am ne Sénégal yi. waaw loolu li ma ci indil sénégalais yi rek mooy ne man sama côté ki ñëw seet ma ci kattanu yàlla ak mbaaxam dina am ndam toog fa mu war a toog déclaré bonheur àdduna bi yëpp seetaan loolu laa ci gis nga ne am na sarax. am na sarax te ñu ngi jëflante man ak ñoom. ah kon yow am na benn mbër mooy jëflante si biir. am na ku ci ñëw ci man ci ñoom ñaar te incha allahu dina gañe te dina toog ci plateau bi mbégte. maanaam kontaan ci gañe gim gañe àddina bi yëpp dégg ko incha allah. d' accord euh, loolu doy na waa yéen ko déggandoo Sénégal léegi yaa Zeyda laa bëggoon ñu ñëw si li nga xamante ni moom laa bëgg ñu gën ko leeral. ñëwaat ci politique bi Sénégal. Mhm. politiciens yi dañoo doy waar. dëgg naa ñu ne sacrifice yi te yéen seen si yéen a koy def. Mhm. loolu am na wala amul. waaw sacrifice yi nit ñi ñu ciy wax. Mhm. waxoon naa ko ci benn interview. ne leen jël xale mu dem loolu yàgg na parce que man mi jëloon nañ ma l'âge de six ans delloo si ma ndax ña ma jëloon nekkul ñoo ma war a jël wala ñoo ma war a yóbbu mhm. mais jinne yi dañ ciy rax mhm. di dis disparaître loo nit ñi mhm. waaw ay jinne dañ ciy rax di disparaître loo te am na ñoo xam ne dañuy réer duñu ñëwaat am na ñoo xam ne dinañ réer ñu gisaat leen waaye képp koo xam ne soxla nga ñaan ci loolu pour yàlla aaral la sa njaboot boo fëggee samay bunt ci d' accord loolu moo nekkoon Ya Zeyda yéen a ko déggandoo kon Ya Zeyda ku bëgg a xam Ya Zeyda fan la mën a ñëw pour xam ko. waaw fan nga mën a ñëw pour xam ko nee naa la hmm. ruq yi ma am dafa bari. Hmm. mais caaro yi mooy sama chaise mooy sama bâche. Hmm. fi la jaj yi ak nekk. ndax nee naa leen sëtu jinne laa ma dokkaaka mooy sama maam. ndaxte am na sama géwélu maam bu baax bu ñuy wax Sali Mbay hmm. kooku xam na ni ñuy taggee ba ñu jokk foofu hmm. dëgg-dëgg moo tax caaro yi la sama chaise nekk hmm. mais ruq yi ma am bari na mais caaro yi daal fi la jajji ak jajar yi nekk d'accord bala may tàggatoo yow gis naa euh, euh, alxuraan bi tegee ma gis tamit euh, xob yi ak sunguf yi ak li xam naa ab signal la da nga yëngutu ci sunguf ak doole am déet waaw damay yëngu sunguf bu baax ndax ku ne Zeyda Ka xam ne doomu pulaar Mm. te yi haalpulaar wi so haala ñawi yo bi cellu mm. te kala moɗɗo jataa ni a yiɗa tukuloor neena so wax feebare ñi koy dégg nañu wer waaye lépp loo am rek neen bugguma mm. waaw sunguf yàlla may na ma ci may ma ci ren dégg nga signel bi nga gis nag tuuti na lool waaye kenn du ko rëkk ah. kenn du ko rëkk mm-hmm. waaw beneen affaire bi tamit am na alxuraan moom li ma ci am sax dafa def ma yéen man sama bopp dégg ñi may doon jàngal nekk samay oustaz ma nekk xale ñoom ñu nekk man ñoom man xam nañ carrément yàlla def na ci man ay mujizaat ay karama yoo xam ne depuis ma nekk xale lañ la doon fekk mais nag alquran ji li ma ciy bind lu ci bëri par ilham laa koy am parce que écouteur baatin am na nga dégg sa nopp yi ay wax yoo xam ne mën nga ci jëriñ jaam yàlla yi hmm. waaw loolu daf may arrivé lu bare bari te su ma arrivé damay jub def liñ ma wax ci kàttanu yàlla bu borom ñëwee rek dama ko koy jox mu gis saafara incha allah. d'accord am nga ay ndomb tul waaw kay ndomb am na am na tamit ay téere yoo xam ne lii bis bu ñu la ko liggéeyale ba pare ba nga takk ko ci sa ndigg ku tii tiim fetal nii tiimale ko du tàkk du tàkk bu la bëggee tiire ni jàkkaarloog yow du tàkk am na tamit ay gàllaaj yoo xam ne bis boo ko takkee maanaam ndab bu am liggéey soo ko tiimee gàllaaj gi dafay wadd dafay wàcc wadd geste la bu mu lay won ne la ndab li baaxul bul ko lekk d' accord macha allah loolu am na solo kooku moo nekk Ya de Ka mu ngi fi euh, si diwaanu euh, Thiaroye ni mu ko waxee rek euh, ñëwal ba diwaanu Thiaroye rek Tali Diallo soo fi yegsee rek soo laajtee nga woote si numéro téléphone bi daw si suuf rek kon ma bàyyi rek nga wax lan nga ñu lay seetaan lan nga leen indil ak lan nga mën a jox comme conseil. waaw li may seetaan mooy na dama naan leen sama jëmm ji partagé leen ko ndax gis texe laa ko tuddee ab la ci jëmm yàlla yoo xamante ni yàlla moo def ci ñoom. dégg nga ku leen xool sa yaakaar mu tas waaw. yàlla daf ma ci boole. soo toogee ak man boo indi woon téeméeri problème boo ñibbi doo yóbbu benn problème loolu yëpp fëgg nga ko bàyyi ko ci man te dëgg-dëgg incha allah xam naa fañ koy def ak fañ koy sànni ci. ok bàyyi la nga tàggatoo ñu lay si sur la télévision suñu TV. Mhm. loolu tàggatoo maa ngi fii di tàggatoo ak nag ci journal télévision suñu TV bi nga xam ne. Euh, dafa xew ci jamono lool yal na yàlla defal leen jàmm te defal leen sutura ci barke Seydina Muhammad waaye yàlla defal la nga ak xéewal ndaxte wane lu baax dara nekku ci hmm. sunu borom moo wax ci wadduha fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis mooy xéewal gu la yàlla may waxtaane ko hmm. te fii dañ fi ñëw pour ñu waxtaane xéewal yi ñu yàlla may hmm. pour ñi nga xam ne ay jaahil lañ comprendre lu léeg-léeg nga gis ñu naan sëriñ bi toog ci tele léeg-léeg nga nangam mais jamono bu xewee xewal ànd ak moom ndaxte méthode yi ku ne xam ne bëri na ku ne xam ne rek noddu nii ci jàkk téera benn débat woon boo xam ne am na ñu métti woon te bañ demee ko ci kam na xam nañ ne njariñ kese la ndax lu benn nit waroon dégg nga fexe ba junniy nit dégg ko ca muy lu baax loolu sant yàlla rek la jërë ngeen jëf ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu jërë ngeen jëf ñi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe ñu bàyyi xel fii amaanillah jaajëf. jërë ngeen jëf mbokk yéen a ko déggandoor naa leen weddi gis bokkul ci kooku moo nekk euh, soxna Zeyda Ka nekk fii si diwaanu Thiaroye euh, Tali Diallo soo fa ñëwee rek euh, soo laajtee numéro téléphone yi mën a jox rek da nga ko jot moom nag nekk na koo xamante ni dafay faj ci aada ak cosaan waaye bëri na tamit ay jafe-jafe yu bëri yoo xamante ni da koy faj yéen ñu koy seetaan da leen gaaw ngeen ki nga xamante ni moo nekk soxna Zeyda Ka nekk ca Thiaroye numéro téléphone bi soo ko woowee da ko jot en direct moom nag disponible na heure bu nekk soo ko wooyee dana faj sa aajo si soobee yàlla borom bi subhanahu wa kon nag mbokk yi lii moo nekkoon na jëla fii sur la télévision Sunu TV la voix de toutes tes voix euh, la télé qui s'impose kon jërë ngeen jëf ba beneen émission incha allah bi ngeen ànd ak moom ci Kër gi la maison merci beaucoup.